ah. waaw yooyu yooyu lépp lu ñu dulóor yi def moom moom moom la. lépp lu. ñu dulóor a góob. est-ce que yaa ngi donc mbokk xaritu internet yu 313 euh, digital euh, comme ni ngeen ko gisee depuis tout à l'heure newoon nañ leen bu ñu jógee fi nga xam ne moom mooy euh, moom mooy ci ci ci kër Diaga daa ñu jógee foofu dem ci levée du corps bi donc jóge nañ fa nii actuellement ñu ngi topp convoi bi nga xam ne moom moo war a dem foofu ca cimetière bu Yoff parce que actuellement Euh, yaakaar naa ni convoi bi euh, mi ngi war a génn ñu dem foofu ci ca cimetière bu Yoff ànd ak euh, corbillard bi et dem ci fi nga xamante ne nii foofu moo nekk sa dernière demeure. alors comme ni ma leen ko waxee depuis tout à l'heure nee naa leen moom it dani nekk na koo xamante ne ku kenn dootul présenté la parce que déjà moom ki ko présenté moom mooy famem famem moo ko présenté déjà parce que boo nee boo nee Thione Seck ne Wally Ballago Seck loolu rek dafa doy sëkk identité ba tax na euh, ki nga xam ne moom mooy euh, Momy Dany loolu moom mooy identité am euh, ci réewum Sénégal ba tey ki nga xam ne moom mooy Bougane Gueye nekk borom këram alors loolu rek doy na sëkk ak barke gis ngeen ko nii convoi bi nga xamante ne nii moom la ñu moom la ñu àndal jëm fi nga xam ne moom mooy cimetière bu yoof pour mën a nag Euh, yóbbu ki nga xam ne moom mooy euh, moom mooy euh, Momy Dany pour nag denc ko parce que tamit xëy na heure bi waroon na fekk ñu denc ko wala sax bokk ñu nekkoon di wàññeeku waaye xam nga nit ak ni mu toll comme li ñuy wax rek bés moom borom lay tollool ba tax na foofu ci levée du corps bi gis nañu discours yu bare bari yi nga xam ne moom moo fa jóg ku ci nekk ci ay mbokkam wala ñi nga xam ne xëy na. ñoom ñoo ñoom ñoo xaw a dund ak moom ñoom ñëpp ku ci nekk danga nga bëggoon a def sa témoignage wax ci moom lu baax li nga xam ci moom loolu moo waral nag euh, xëy na euh, ñu xawoon a yàgg foofu ci levée yu corps bi waaye heure bi waroon na fekk euh, ñu pare bu yàgg ba yóbbu ko fi nga xam ne moom mooy ci cimetière yu yoof waaye lu ci mënti am ñu ngi dem foofu ca yoof mën a donc jébbal ko ki nga xam ne moom mooy boroomam alors gis ngeen ko convoi bi ni mu méttee nii yoon bi ñu jël nii nag moo nekk euh, yoon bi nga xam moom moo nekk ci suuf pont foire bi pour mën a wëri dem jëli euh, euh, route de Yoff bi mën a fëlee ci armeeru yoof yi donc voilà gis ngeen ko noonu convoi bi moom moo nekk noonu suñu kanam et puis ba tey corbillard bi ba tey tamit moo gis suñu kanam gis nañu ne moto yi ànd nañu ak moom oto yi taxi yeeg ay 4x4 yu dul jeex ñoom ñoo ànd ak ki nga xam ne moom mooy moom Momy Dany pour mën koo gunge foofu nga xamante ne ni moom mooy euh, ci euh, këram gu mujj euh, ci cimetière yu Yoff yi donc voilà gis ngeen ko xam naa ni nag soreetuñu dara dara fi nga xamante ne ni moom mooy cimetière yi ndax boo xoolee actuellement ñu ngi nii ci suufu pont bi nga xam ne buñ ko rombee rek juste ci SDE bu Yoff alors yaakaar naa ne buñ ko rombee rek dañuy daal di dugg nag foofu nga xam ne moom mooy ci ci euh, cimetière bi euh, mu nekk loo xamante ne agsi nañ fa ba noppi ñu ngi ci càppaandaw gi laa ko mën a waxee alors euh, fii nag du yomb pour ñu jaar fi parce que sens bi ñu jël la waaye dara dinañu fexe essayer xool naka la ñuy def ba mën a traverser fi nga xamante ne ni moom mooy voilà moom mooy moom mooy moom moom mooy moom mooy moom mooy tali bi parce que deux voies la. deux voilà la dañuy yéeg pont bi bu ñu yéegee pont bi tourner après nag euh, doo ko mën a wàcc fi nga xamante ne ni moom mooy ci euh, ci euh, voilà ci cimetière yi gis nga ko noonu dañu bëgg xaar li nga xamante ne moom mooy convoi bi bu ko defee mu ñëw ñu yéeg pont bi wër donc mën a wàcc ci beneen sens bi nga xam ne voilà ci beneen sens bi nga xamante ne nii xëy na moom mooy permettre ñu mën a dem directement fi nga xam ne moom mooy euh, ci euh, cimetière yi alors euh, gis ngeen ko convoi bi mi ngi suñu kanam ak suñu ginnaaw mel ni am na oto yu nekk si kanam am na oto yu nekk si ginnaaw ñu jëm fi nga xam ne moom mooy ci cimetière cimetière bu Yoff donc pour ñu am solution pour mën a dem ci cimetière yi va falloir ñu ñu ñu yéeg ci kaw pont bi wër. tourné doog a wàcc jàkkaarloog euh, voie bi nga xam ne moo jëm ci euh, armée yi. voilà gis nga ko noonu solution la ñuy ut gis nga ko ñi nga xam ne ñoo gérer euh, ñoo gérer. Euh, organisation circulation bi pour ñu mën a am exactement euh, yoon bi nga xam ne moo gën a gaaw donc pour mën a dem exactement foofu ca cimetière yu yoof voilà am nañ solution ndax ci kaw lañu la ñuy jaar bu ko defee nag euh, ñu mën a mën a du ay du ay Aïcha Abdou bu ko defee ñu mën a dem fi nga xamante ne moom mooy ci ci ci ci cimetière yi voilà gis nga noonu donc. convoi baa yi noonu ñuy dem euh, ci cimetière yu Yoff donc yaakaar naa ni gis nga corbia bi moo nekk noonu suñu suñu suñu suñu suñu ginnaaw voilà bu ko defee mën nañ leen a xaaral li nga xam ne moom mooy euh, corbia bi mën koo jiital mu nekk euh, suñu kanam et ñu ànd ak moom ba foofu nga xam ne moom mooy ci cimetière yu yoof yi voilà gis nga ko boo xoolee oto yi daw yëpp mm. ci convoi bi la ñu bokk parce que dañu arrêté euh, oto yi daw yëpp pour mën a jàllale li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy euh, corbia bi ndax ñu mën a teel a àgg fi nga xam ne moom mooy cimetière yu yoof alors gis ngeen ko noonu corbia bi mu ngi suñu ginnaaw di ñëw xam naa ne sous peu de temps léegi mu agsi fi nga xamante ne nii moom mooy ci tali bi parce que gis nga fexe nañu ba dévier Euh, corbillard bi fexe nañu ba dévier tamit euh, yoon bi nga xamante ne ni voilà moom la moom la corbillard bi gis nga cortège bi voilà gis nga cortège baa ngi noonu gis nga ko voilà cortège baa ngi noonu et puis euh, mu nekk cortège boo xamante ne ànd na ak organisation ba tey corbillard baa ngi noonu bu ko defee ñu ànd ak moom ci li nga xamante ne ni voilà moom moom mooy yoon bi voilà mu ngi noonu gis nga coow li mën naa ñàkk dem leen ndànk rek parce que ñëpp yéen bokk euh, fu ngeen jëm voilà Abdou nga li ma gënal voilà donc euh, jaaral ci kawam ay ci ay li ñu bëggoon a noonu dañu jiital euh, corbia bi ànd ak moom ko defee voilà Djimbory <laughs> noonu gis nga ko noonu ñu ànd ak corbia bi ba tey yaakaar naa ne li ñu bëggoon moom lañu am actuellement jiital euh, corbia bi mu bañ ñu raw benn yoon gis nga ko corbia bàyyi noonu moom lañu ñu àndal donc euh, fi nga xamee ni nag euh, fii la corps moom mooy moom mooy moom mooy euh, ci euh, cimetière yi ba tey euh, gis nga ko ni nga xamee ni noonu la demee yaakaar naa ni ba léegi rek yërmande bi nga xamante ne ni moom la nit ñi amoon ci moom waral tey ñu gën a bokkaat ci voilà cortége bi nga xam ne moom moo ko gunge pour ñu yóbbu ko fi nga demal demal fi nga yóbbu ko fi nga xam ne moom mooy ca Yoff gis nga ko noonu ba tey yaakaar naa ni. amul benn yoon euh, loo xamante ne nii changé na depuis euh, euh, commencement bi amul dara loo xam ne changé na alors engouement bi nga xam ne moom la ñoom ñëpp amoon ànd ak ki nga xam ne moom mooy moom yi pour yóbbu ko foofu ca cimetière Yoff yi yaakaar naa ni voilà moom la ñu àndal ba tey gis nga ko lii nag dal na xel dal xel gi mu dal xel ba tey daw na yaram parce que boo xoolee convoi bi yëpp. yëpp yëpp lu ko dalee si euh, pont foire bi ba gis nga ko ci kaw pont bi nga xam ne moom la ñu war a yéeg pour tourner dem foofu ca euh, cimetière yi yëpp donc euh, oto yi nekk ci kaw pont bi yëpp alors cortège bi la ñu àndal pour mën a pour mën a yóbbu ki nga xam ne moom mooy buggaan gis nga ko ñii ñëpp nekk ci organisation bi nii yaakaar naa ni ci ci. ci convoi bi la ñu ànd euh, pour mën a mën a euh, organiser affaire yi normal ba ku nekk nag mën a jaar euh, fi nga war a jaar ñu yóbbu ko ci jàmm donc denc ko ci jàmm mën a wàññeeku waat itam ci jàmm gis nga ko noonu ba fii may waxee ak yéen ko organisation bi lii yëpp ci organisation bi la bokk et puis moo ngi noonu fi mu nekk nii nag jël nañ yoon bi nga xam ne moom moo jëm directement foofu ca foofu ca cimetière yu Yoff nii la def même ñoom bu ñu nii sax def moo ñuy arrangé. boo dem leen dem leen dem leen eh. dem leen si suuf boo dem gis nga ko ci kaw pont bi sax euh, dafa am benn benn bousculade bu fi am parce que oto yi ñoo bari moto yi bari moo waral euh, corbillard bi boobu ba tey mënul sax circuler normal euh, gis nga ko boo xoolee ci kaw noonu corbillard bi ba tey mu ngi ñëw waaye mënul ñëw comme il faut parce que tamit voilà yëf yi ñoo bari torop torop torop ci li nga xamante ne nii voilà moom mooy tali bi et puis Fall bu ñu mënoon a taxawee nga xam ne moom moom ñu loolu moom moo ñu arrangé voilà. voilà gis nga ko ñu mën a am li nga xamante ne nii moom mooy euh, corbillard bi di ñëw voilà corbillard baa ngi noonu ànd ak gars yi donc ñu escorté ko muy ñëw voilà gis nga ko ñu ngi ko escorté noonu muy ñëw Aca Fall mën nañu avancer tuuti àndaat ak moom wala ñu may ko tuuti moom mu jiituñu tuuti rek ñu mën ko jël donc ànd ak moom voilà mën nañ ko jël latéralement rek. parce que xam naa ni tali bi nii yaatu na te gars yi xàll nañ ko et puis amatul kenn koo xamante ne peut-être mën nañu ko empêcher et puis fii nii nekkul euh, nekkul aller retour benn voie kese la donc euh, aller bi ñun rek ñoo ñoo ci nekk donc euh, mën nañu avancer mu bañ ñu raw ñu ñu bàyyi fi ñii donc voilà Fall acca jël ko côte à rek voilà donc bu ko defee nga ko euh, ni nga xamee ni noonu la demee gis nga euh, cortège bi métti na ci ñi nga xam ne peut-être ñoom ñoo gere organisation bi parce que bi ñu jógee Ouest ba tey ñoom ci ginnaaw cortège bi la ñu topp di daw waaye gis nga ba tey euh, ni nga xamee ni itam noonu la ko noonu la ko police yi di gérer motariste bi gis nga ko moom boobu ba tey mi ngi gérer li nga xam ne moom mooy moom mooy circulation bi gis nga ko noonu moom mi ngi def liggéey bu am solo. Euh, pour nag euh, tali bi mën a libre di mën a euh, jàllale ki nga xamante ne moom mooy moom yi te wàññi ko tuuti ñu mën a xaw a waaw ñu xaw a maase ñoom ñu bañ leen a ñu bañ leen a dépassé donc voilà ñu ngi noonu gis nga ko.